waaw njàngat bi moom dafa mel ni dama delluwaat ci amphithéâtre yi pourquoi ma wax loolu li ma wax ci biir salle bi moom laay waxaat ci tey ndaje mi dafa am lu mu war a jàngal doomu aadama yu bari pourquoi parce que docteur Alioune Sarr di président wu CNG bii nga xam ne tey moom la ñu dénk vingt six ans ak sept mois ak ay jours yu ci tegu yor mbir ba mu neex ko mu ñëw yëkkati tegaat ko ne seet leen keneen ndaxte dama amaat yeneen engagement kooku ku ci jàngul dara dootoo jàngati dara di ko gërëm di ko sant di ko félicité di gërëm njabootam mi ko bàyyi woon aussi mu daal di teew ci suñu wet metti woon na trop parce que dama ko jege xam naa li mu doon dund mais nag loo xam ne app bi jeexul mënoo fexe ba mu jeex yàlla nag tey la ko tudd mu delloo leen lenge yi alhamdulilahi rabbil alamin li ma ko wax ci salle bi rek laa koy waxaat kenn jéppiwu la tu sors fier de cette salle glorifié waaw gonflé voir même pourquoi parce que moom moo ko liggéey loolu laa lay wax ni la demam bi tey ji nii ku ci jàngul dara sa jàng des na ku nekk kuy jur doom rek muy jigéen di góor war nga ñaan quand am lu am am li mu am nii di dem comme ni mu ko waxee nii léegi am li l'unanimité kooku sant yàlla rek la leneen li ci des nag moom mooy nañ leen rafetal suñu diggante nekkin wi rafet ànd bi rafet tey comme li mu ko wax jullit la day baale ak mais am na wax ju metti joo xam ni heure bu dikkaate ci xelam ça fait grincer le cœur mhm. nañ leen di rafetal ànd bi ngeen di jox seen micro yi it ñoo xam ne jar nañoo déglu dafa am ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi wax waruñu wax amuñu lu ñuy wax te kenn warul leen a déglu parce que ils sont pas des références ils sont pas des modèles du dégg pour la jeunesse xam nga doomu aadama la positivité n'a pas de prix mais malheureusement dañoo nekk ci benn sport boo xam ne rek nit ñi ku ñëw dugg ku mu neex rek nga wax wax nag ci koo xam ni dalay leer ni tey jii nii comme li ñu ki ana maam góor jasaaka mu ngi fii ku nekk xam nga sa baay yaa ngi dégg ku kan la man sa maam maamu kan la man jasaaka moo ko fi woy kon il faut que doomu aadama yi di xam seen bopp yéen itam mënuñu leen tee joxe seen ay micro mënuñu leen tee wax mais nag seet leen ñi ngeen di jox seen ay micro wax loo leen ñi nga xam ni war nañu wax di leen tal tàllal seen micro ñi nga xam ni war nañ leen a déglu mais ku amalu làmb njariñ defoo ci làmb defoo lu dul benn sàmba sàmbaay booy boo xam ni da ngay wàllu ñu jox la micro lu ñu dal lu ne yéen a ñu ko teg wax day leer. ah non xawma sa micro moi je parle d'une généralité je parle d'une généralité mois je parle d'une généralité dama leen ni gis nga éducation ci sa bopp lay commencer comme li nga wax ni sama micro kenn du ci wax lu ñaaw na ñëpp def noonu ku bañ ñu saaga la bul déglu ñuy saaga keneen ku bañ ñu xas la bul déglu xasi keneen ku bañ ñu wax la wax ju ñaaw bul diffuser wax ju ñaaw keneen charity begins at home charité bien ordonnée commence par soi-même yaa ngi may dégg man loolu laa am ci lu ma leen di wax xëy na nag kii mag la. kii référence la kii royuwaay la kii tey jii nii boo ko jëloon yóbbu ko ci amphithéâtre bi étudiant bu am xam-xam laay wax de bu ko xoolee xam la may bind. taxawaayu làmb ci ki war a ñëw. ki war a ñëw ñun la wax day leer waaw ñun la li ñuy ñaan rek mooy dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin